mbay baara mbay bu rëg bër ni waxal baara hmm, mbay baara mbay baara mbay bu rëg bër ni feccal bu la neexee wata tak ci san ba takin tak waay sa mburoo neex ba sakin ba takin tak nga def ci bëru pat la yaa xam ban moo la saf diwal ba mu tooy xib yow frexeel ba mu tooy xib diwal ba mu tooy xib bintu da nga pata pata <laughs> yow da ngaa neex man mii jonga ba énervé xool ma eh jonga may xadi ba du ngay waxal defoon kon na nga jonga ma nii ba yàq noppi dara fi nit du yor ji malawaay du ñoo fi jëloon eskaa yëpp teg du ñoo fi jëloon Viber teg ko ni nga nee nag jaar na fi jàll mu nga nee di dem tey leen Facebook WhatsApp Sénégal jay Sina. allo ma chérie préférée. bëgg naa la lool. waaye bëgg yëg koy fay waaye fii laa la def ci loo ne. ci jàmm. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. maa ngi ci jàmm bu baax. ba la. non non ça va comme gis naa la kontaan naa. ah wallaahi ndeysaan yaay sama xarit préféré. noonu la. d'accord loo bëggoon ma seetal la. waa seetal ma. Ah, d'accord d'accord. sama rabu seet bi dafa yegg see de. Ah, ah yoo xamante nañu. waaw yaay sama xarit xoolal dugaatal léegi samay jinne yëngatu. maa ngi doog yow seet yaay sama xarit bëgg naa la je t'aime. waaw Mariama Mariama su si jàmm Mariama temps yi looy liggéey. te man lu may liggéey man de lundi ba vendredi defuma dara waaye samedi dimanche moom damay noppalu moom. waaw madame liggéey boobu moom baax na téye ko. aar dafa garaaw ma ni ko sellaar c'est ton axillaire il est je ne sais comme il aara xóot la ma làq tereraa mi doon service Senghor bu dee jugut bërëju mbéj ma delluwaat